asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 daleen ak jàmm ci seen émission SOS santé ñu ci waxtaan ajuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h lépp lu ñel wàllu wérgu yaram te ñu am mbégte di ci dalal ki nga xam ne moom mooy Thierno Lecompte Seck di euh, nag njiital ñi nga xam ne dañuy maye deret fii ci euh, Sénégal ñu amaat mbégte di ko dalal ndax nag euh, moom yàgg nañ di ko kon dalal ci sunuy émission muy def ay intervention yu am solo ci sunuy antenne Thierno Lecompte Seck ñu ngi lay nuyu. nuyu naa leen euh, soxna li ma tudd nuyu aussi kilifa rajo mi FM ak auditeurs yi nga xamante ne ñoo ngi déglu. Mhm. voilà donc Thierno Lecompte Seck nga jiite ab kuréel boo xamante ne dafay yëngu ci wàllub main deret est-ce que mun nga ñëw un peu ci euh, association boobu noonu. waaw euh, man njiitu association nationale des donneurs bénévoles de sang du Sénégal muy kuréel goo xam ne kii dafa ëmb képp kuy main deret Euh, ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoo koy dundal. Mm-hmm. mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu aussi dañuy jàppale may ndax te xëj na mënuñu koo def mais am nañu pas-pasu jàppale li nga xam ne may retraite la. Mm-hmm. ñooñu it bokk nañ si. ak euh, yenn kilifa yoo xam ne seen taxawaay si réew mi nekk na taxawaay bu am solo ñaare dinañu ñëw seet sañu jàppale ñu si li nga xam ne moom la ñuy liggéey. muy mm-hmm. oo nit ñi ñu ñëw may retraite Mm-hmm. ndaxte comme ni ñu ko xamee direct moom euh, borom xam-xam yi màcc si wàllu santé wax wàllu wér yaram mm-hmm. ñu ngi def lu ne mais ba léegi mënaguñoo gis lu ko mën a euh, remplacer. Mm-hmm. kon nag doomu aadama rek moo ko mën a may doomu aadama pour mën ko jëriñ. tey ñu gis ne da ci engagé bu baax lan moo la motiver ba tey nga nekk ci mbir mi nekk ci waax bi te découragé woo ci. waaw loolu day su ma ko naree wax damay dellu ay at si ginnaaw. Mhm. ndaxte 1978. Mhm. kilifa gu baax ku nekkoon si réew bi ñu mooy muy El Hadj Ibrahima Sakho eh, yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. te nekkoon kilifa ñëpp xam dëkkoon Tëngéej. nekkoon sama xaritu waajur. sama waajur woowu yàlla yàlla moom si boppam eh, mu ñëwoon doon waxtaan ak sama papa ma ñëw fekk leen di leen waxtaan mu ne Thierno si se dund taxal ba nga def si lenn loo xam ni doomu aadama du la si wax jërëjëf mën na tax a texe ëllëg te defe naa ne képp jullit bu nekk rek texe ëllëg mhm. boobu nag moom si dugal yàlla def donc euh, ci jamono yooyu ma demoon building administratif. Mhm. Euh, mun am temps yooyu ñu daan organiser journée nationale du don de sang autant la léegi nga xam ne dañuy wax journée nationale des donneurs de sang. Mhm. donc journée nationale du don de sang boobu bi waa ji sensibiliser maanaam o au nit ñi pour ñu ñëw mu ne ki nga koy may xamu la euh, ki yow mi koy ki yow mi koy may aussi xamoo ki koy jot donc ñaar ñëpp ñaari acteurs yëpp ki maye ak ki jot. kenn xamu si sa morom. Mhm. kon relation boobu mën naa wax ne yàlla rek moo ko séddee. dëgg la si loolu nag ma ne donc la ma recommandation boobu son si góor gu baax googu. Mhm. Ah, yàlla indil na ma ko si laa commencé maye deret. Mhm. Ah, bi ma ko dara def ba léegi na gis naa ne euh, si sama wér gu yaram sax bu ma ko si seetee rek. dafa mel ni loolu moo tax ba bu may dox sax dañ may teg bu ndaw. Euh, ndaxte macha allah yàlla daal defal na ma jàmm si sama yaram. Euh, loolu it yaakaar naa ne bi am na si dinañ ci ñëw ci biir émission bi peut-être ci ngëne yi ma tey ñu gis ne euh, association bi euh, quand même euh, yàgg na bi mu taxawee macha allah ñu gis ngeen ciy def liggéey bu am solo. ngeen mhm. lëkkaloo itamit bu baax ak waa centre national de transfusion sanguine di mhm. ñi nga xam ne daal ñoo fi toogal daal buur ci wàllu maye deret. Hmm. Mhm. mën nga ñëw tuuti seen relation. waaw ñun association la boo xam ne bii. état bi si boppam moo ko reconnaître d'utilité mhm. publique xam nga bari na ay association yi am fii mhm. mais seen taxawaay euh, état bi xëj na euh, mënu leen jox lu mel noonu mhm. reconnaissance euh, reconnaissance d'utilité publique mooy yow da ngay taxawee taxawaayu service état donc di def li nga xamante ne état bi si wàlla ba ngay daf ko waroon def nga ñëw nag pour jàppale ko si loolu moo lay wax reconnaissance d'utilité publique ñu am ko nag Euh, ministère de la santé euh, fexe ba euh, ñu mën a am loolu. Mm-hmm. ñu leen di dimbali nag dimbali boobu nag féete beaucoup plus ci centre national de transfusion sanguine. Mm-hmm. ndaxte mooy kuréel gi nga xam ne si réew moom la état bi dénk lépp lu jëm si saytu ak fexe ba deret yi mën a disponible. ci mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo soxla muy hôpitaux yi. sur le plan national. moo tax it ñun ñu am taxawaayu association nationale parce que fépp am rek fu ñuy maye rek. Euh, ñu ñuy fexee niñ fa amee ñu fa toog di def liggéey boobu nga xam ne mooy jàppale ñi say liggéey pour nit ñi mën a ñëw maître ndaxte euh, mm-hmm. oui allez-y mm-hmm. Mm-hmm. ndaxte sensibilisation boobu ndaxte deret dafa am solo dafa bokk si mission bi ndaxte tey jii bu nit ki ñëwul maye deret deret du mën am te am na ñoo xam ne ñi tey bari na lu leen tënk ba du ñu maye deret donc ñàkk xam la ñàkk xam boobu nag dafa bokk ñun ci suñu mission pour dem si nit ñi gën leen a ñaax gën leen a wax te loolu na ay jamono taroon na trop. Mhm. si jamono bi nga xam ne dañ doon wax le sang contaminé ba xawoon sa bitim réew. nga xam ne ñu ñi dañ doon ragale dem maître parce que dañ ci gisoon ne nit amoon na si problème si bi nga xamante ne dañ ko jox mooy dañ ko dañ ko sol. Mhm. mais loolu eh, eh, erreur la woon rek maanaam ñàkk def attention indi na si loolu. Mhm. tax na kon moment boobu nag si ah, la ñu gën a gën a gën a liggéey. Eh, mu metti lool. mais alhamdulilahi rabbi alamin tey jii bu ñu gisee ne bari na ay association bari na ay kuréel ñu taxaw di boole si seen programme mu ne ñu jëm si def benn benn journée mbayteet loolu ñun dañ koy dañ si kontaan lool ndaxte tey booy liggéey te li ngay liggéey euh, doomu aadama mi tax nga di ko def kon bu si ñeneen jógee aussi taxaw si pour mu nekk da ngay def lu dul gërëm leen sant leen ñaan leen ñu gën a yokk taxawaay bi ndaxte euh, chaque jour rek am na lu war a tax ñëpp la maye dara. Mhm. Euh, tey jii association bi nga bi nga xam ne moom nga jiite buñ ko doon xool tey di ko xayma à peu ñaata nit ñoo ci nekk. bon tey ji buñ ko doon xayma man naa wax officiellement si li nga xamante ne nekk na parce que bu may wax membre mooy ku ñëw jënd carte association bi. Mhm. Euh, sur les quatorze régions teew nañu si onze. Mhm. waaw ndaxte am na yenn yoo xam ne amaguñ fa euh, kuréel gu ñu fa taxaw donc am nañu ay cellules départemental am nañu ay bureaux régionaux ak l' instance nationale. Mhm. donc nag euh, mu nekk lu xaw a difficile ndaxte xam nga euh, loo xam ne lii moom sa jëmm bopp rek. yaay am sa cawarte euh, kenn fayu la kenn neexu la yow yaay sawar pour ñëw def ko. Mhm. kenn mënu la obligé. donc vraiment bu ñu wax volontaire si don de don de sang donc booy xayma tey ci toll nañ si presque puis de deux cent cinquante membres yoo xam ne franchement ñu ngi teew si gox yi. mais li si ëpp nag ñu ngi au niveau de la région de Dakar. Mm-hmm. voilà mu nekk lu am solo euh, pour ñëw ci euh, actualité bi euh, Thierno Lecompte Seck ñu gis ne jamono ji dañ nekk ci jamono joo xam ne àdduna yëpp dafa daal di daanaka nërmeelu laay mën a wax ndax feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus ñu nekk di ko mm-hmm. xeex ci pàcc yëpp nag mu am ci ay répercussions rawatina ci pàcc maye deret parce que mm-hmm. umpale nañ ni. umpale wu ñu ne ni même bu fekkente ne temps normal sax wax nga ko léegi nit ñi pour ñu am volonté dem mayee ji dafa jafe wax du man feebar am ñenn nit ñi tiit est-ce que mun nga ñëw un peu ci situation boobu. waaw situation bu doy waar la bu doy vraiment euh, ki nga xamante moo jiite centre national de transfusion euh, si fan yi rek mu ngi ciy def alerte. tamit lu jiitu loolu sax jot nañ si wax. pour wane ne daal bu ñu deful attention euh, mbir mi nga xam ne mooy coronavirus bi nekk ci dëkk bi euh, mbas mi comme ni nga ko waxee. Mhm. Euh, yal na ko fi yàlla dindi. amiin yal na ko fi yàlla dindi defe naa ne ñaan yi am na ci solo ak di moytu. Mhm. moytu bi aussi dañ koy demander nit ñi ndaxte kat pour ñu may deret il faut nit ñu wér. Mhm. donc bu nit ñu wérul du ñu may may deret donc la ñuy ñaan yàlla di ñaan aussi population yi li nga xamante ne état bi teg na ay mesures de prévention. ñu mën si euh, jàpp ba doxal ko ba moytu. Mhm. surtout rawatina tey ñi ñuy wax vraiment euh, contact communautaire bi nga xamante ne. Mhm. Euh, moo commencé law te ñun ku ñu xam ak suñu dundin dañu dañu féex trop. yaakaar mhm. nañ ne bu ñu demul seeti nit rek. gisu amuñu amuñu defuñu lu baax. ba tax na donc mesures yooyu nga xam ne état bi jël na ko. mais si góorgóorlu lu ñu mais gàllankoor ba mu indi nag. mooy comme dañ ne bu ñu ñi dajeet mbooloo bu muy amati nañu moytu ay mbooloo yu daje euh, loolu dafa ñëw yàq lu bari. ci li nga xamante ne moom lañ doon am si deret au niveau de centre national de transfusion sanguine ndaxte euh, centre bi tey boo fa demee ñu ëpp ci ñu fay maye. Mhm. ginnaaw étudiants yi nga xam ne vraiment moment bi nekk tuñu université. Euh, ak euh, yenn euh, association yi nga xam ne dañuy wax ay amical nekk si service mhm. lu ëpp si deretam mu ngi koy am bu génnee centre bi dem si organisation communautaire de base maanaam si mbootaay yeeg ASC yeeg yenn yenn organisation yi nga xam ne dañu nekk si biir gox-goxaat yi mhm. foofu boo doon seet ak calendrier centre national de transfusion sanguine daal nañu am benn ba ñaari génn par bés donc tey bu ñu xaymaa téeméer poche de sang yu ñëw mën nañu wax ne lu ëpp juróom fukki yi si génne boobu ñu doon génne lañ koy am. Mhm. tey jii bu loolu amul xam nga ne kon lii manqué dina bari lool. Mhm. association yi nga xam ne avant ñu déclarer feebar bi wala organisation yi nga xam avant ñu déclarer dañu ñëwoon demander ñu réserver leen date. Mhm. parce que xam nga yu mel noonu dañ koy planifier donc dafa am ku nekk boo ñëwee wax dañuy bind bés bi nga xamante ne moom nga soxla mais bés ñu inscription yëpp te waroon génn pour dem euh, outil ji deret jooju association yëpp dañ ko annulé ndax mm. pour respecter disposition boobu maanaam loolu nga xam ne état bi teg na ko pour nit ñi moytu li nga xam ne mooy mbas mi. Mm-hmm. kon nga boo xaymaa rek xool nga ne donc lii wàññeeku bari na te centre de transfusion sanguine bés bu yàlla sàkk dina génnee du mat téeméer ak juróom fukk si poche de sang. Mm. ak juróom fukk si poche te boo jàppee ne poche de sang boobu nit ki ko mayee balaa mu koy mayewaat dina toog ñetti weer kon bu nit ñi ñëwul problème dina am. donc problème boobu centre bi du waxuma génn boobu rek d'abord même au niveau du centre. Mhm. nit ñi ragal dem. alors que waruñu ragal dem centre bi li sax waruñu ko ragal mooy xëy na bu ñu génnee disposition yi nga xamante ne moom la ñu recommandé mën nañu am jafe-jafe pour ko mais centre de transfusion sanguine boo fa xasee bu dugg si buntu ba rek. Mhm. disposition de prévention yooyu da nga commencé jug. Mhm. ndaxte boo dugg si buntu bi rek dana jox nga raxas say loxo. bon boo ñëwee distance yi nga xamante moom la nit war a toog ak moromam dañ ko respecté. bon booy joxe sa deret la même chose booy génn la même chose donc toutes les dispositions yi nga xam ne demandé nañ ko di ko nit ñi pour nit ñi jëfandikoo ko te hôpitaux yi wala structure de santé yi di ko di ko doxal boo demee centre de transfusion sanguine moom nga fay fekk mm-hmm. mais nit ñi ci cause bi maanaam xelu boobu nga xam ne moo leen topp que dañu war a moytu tax na ba même centre ba boo fa demee bon ne fan yi sax ñu ngi xaw a tuuti bu ma ko mënee waxee noonu. Mhm. mais si a ah, tiitoon nañu tiit boo xam ne bii dañoo xam ne lii bu continuer deret ji dina ñàkk ñàkk boo xam ne la muy jur si musiba day métti. day réew mm. ah, réewloo mbir ne tey jii euh, am na ñoo xam ne ñi dañuy dem di defi dialyse bu deret amul duñu mën a def dialyse mhm. am na ñoo xam ne ñi tey jii amul benn médecin buy opérer. bu sañ dugg bloc opératoire te fekkee ne deret amul te am na ñoo xam ne dañ war a opérer am na ñoo xam ne dañu war a def chimio maanaam affaire cancer. Mhm. tey jii bu deret amul dañuy am problème jigéen ñi mucc. Eh, am na jigéen ñoo xam ne ñi tey jii bu ñuy mucc dañuy ñàkk deret bu deret amul dañ dem ba bi li xewagul dañ ko doon joytu ndaxte bari na jigéen ñi ñàkk seen bakken bu ñuy mucc mais ñu du ko joytu tey bu lii xewee dafa naa bu doon nekk benn booyet leen dina nekk fukk Euh, nga ñëw pédiatrie la même chose accident yi am la même chose kon comme ni ma ko waxee sa njëlbeen bu amul doomu aadama dem may centre bi dina am problème pour man di respecter téeméer ak juróom fukk yooyu ma wax leen chaque jour dina génn centre de transfusion sanguine mhm. donc nag euh, problème bu bu kii la bu bu doy waar la mais war nañ war nañ jéem a seet euh, ku si nekk rek bu fekkente ne yow xam nga ne vraiment amuloo lenn looy xalaat si lu jëm si coronavirus bi nga boo mënee def jéego dem ba centre ba mayee fa deret euh, ñibbiwaat defe naa ne loolu aussi euh, waruñu ko waruñu ko mm-hmm. war a mën a bañ dañ l' essentiel c' est organisé au niveau du centre c' mu nekk dem si biti ndaxte des fois bu ñu demee si biti dinañu am problème mu respecter les yi nga xam ne moo war mm-hmm. moo tax kon mu mel ni kon euh, metti lool bu ñu déggee li nga comprendre parce que ñëpp impliqué am Mm-hmm. ñi nga ah, cité léegi ñeneen ñi amee feebar yenn chronique yi jigéen ñi war a am doom ak yeneen ak mm-hmm. yeneen. mu nekk mm-hmm. mbir moo xam ne buñ ko toppee nii psychose bi mun na dem ba andil ñu jafe-jafe yoo xamante ne sax mooy mooy raw corona. Mm. wallaay wallaay mooy raw corona te fa muy gën a méttee nag xëy na Dakar sax. Mm. nit euh, xal nañu am benn dégg-dégg bi mais demal si gox yi nga xamante ne tey jii si jamono ji nga xamante ne feebar bi ñëwul. pour ñu mayee deret rek dañu daan sol na pour dem def ji ko. Mhm. waaw dox dañuy par exemple boo jëlee ay dëkk boo demee Tivaouane poste de sang bu fa am du banque de sang mais buñ fa soxla am na lu ñuy soxlaa deret mhm. dañuy ñëw ba Thiès ba ut waaw bu ñu ñëwee Thiès fekkuñu ko fa. day day poser problème mhm. donc nga gën a dugg ci biir réew mi ndaxte dëgg la maykatu deret yi xal na néew. buñ ko xayma par rapport ak li nga xamante ne moom la OMS euh, demander pour réew man ko am pour ñu ne ah foofu kat euh, sécurité transfusion bi am na fa maanaam aar nañ ba traite euh, du fa ñàkk ndaxte dañ ne euh, euh, ñaar ñaar yoo jël na fukk na si am fukk yu may deret mhm. tey jii Dakar moo toll si loolu mais boo duggee boo ko jëlee xayma national tey man da ngay jàpp ne xëy na juróomi nit wala boo waxul ñeent sax xëy na nga ne ñoom moom la Sénégal am pour jéem a dab li nga xam donc retard bi am na solo. Mhm. am na solo te bokk na si li tax ñàkk solo soxna si mooy béréb yi ñuy maye det dafa manqué. Mhm. ndaxte tey bu ñu jëlee rek département yi nga xam ne moom la Sénégal am sur quarante cinq département yi nga xam ne Sénégal am na fi mais vingt cinq banque de sang rek moo am donc moo doon jël département bu nekk euh, war na mën a am donc euh, lu bon bon bon euh, benn banque de sang. Mhm. tey ñu am si quarante cinq département donc euh, vingt cinq am donc manqué nañu vingt banques de sang ci réew mhm. donc loolu dama si def appel euh, tey jii dama si profiter de votre de votre antenne pour def appel aux collectivités locales mhm. ndaxte tey médecine bi aussi maanaam santé wér yaram dafa mokk lu ñu transféré li nga xamante ne ñooy maire yi. Mhm. mais nañu fexe bari na ay tey ay béréb yoo xam ne am nañu banque de sang nga xam nga la mooy seen problème ñaari pour ñu génn. Mm. am collation loolu ñuy jox nit ki bu mayee deret ba pare. le temps que mu toog ko jël. Mm. Mhm. nga xam ne sax waxuñu ko day remplacer deret mais temps d' observation parce que mm. nit ki mën na mayee deret ba pare bu ñu ko bàyyee mu dem mu daanu wala danañ fekk ko si. moo tax buñ la boo mayee deret dañ lay jox nga toog jox la nga lekk nga naan loolu pour ñu mën la observer pour mu bañ a am suite. mais loolu doomu aadama yi la. Mm-hmm. donc euh, maire yi waroon nañ fexe ci seen politique. ñu dugal ci subvention boo xam ne day dem ci loolu nga xam ne mooy collation bi ba hôpitaux yi wala banque de sang du am jafe-jafe des fois pour génn pour dem uti ci dara. Mm-hmm. parce que loolu bokk na ci aussi jafe-jafe nga xam ne aussi euh, maire dina ko dund. Mm-hmm. te loolu au moins mun na servir euh, mun na attirer nit ñi bu ko defee ñu mën a ñëw di may seen deret en quelque sorte. waaw effectivement am na ay jamono nit ñi loolu lañ foogoon boo waxee ñu ne bu ma bëggee dépense damay dem euh, si <laughs> damay dem hôpital Fann. Mhm. boobu noonu lañ ko daan waxee damay dem hôpital Fann maye fa rek ñu jox ma téeméer dërëm. Mhm. mais <laughs> loolu yàgg na. Mhm. mais euh, comme ni ma ko waxee euh, am na ñoo xam ne xëj na bu ñu ñëwee ñu jox leen collation ne serait-ce que loolu. dina leen dimbali ndaxte ñàkkul nañ toog bés bi na loolu sax duñ ko am comme comme comme comme lekk mais ni ñu koy jëlee rek mooy du lu ñuy encouragé pour nit ki ne lii laay uti pour lii Mhm. parce que bu kerogee rek dafay indi beneen xalaat boo xam ne bi du xalaat bu rafet. Mhm. maanaam yow boo koy dem di defi si li nga xam ne moo luy recommandé waroo mhm. boobu. il faut que nit ki bañ a jàpp ne nii pour am lu lekk ak lu ma naan. donte na lekk naan bi noonu nit nekk da nga a am mais li ëpp solo si may rek mooy yow nga si sa coobare bopp. dem def ko kenn du xam. nga fexe ba euh, kenn du la jox dara. Mhm. ndaxte dette kat booy ñëw di ko may rek lañ lay xam de. Mhm. mais bul xësee ba jël ko ba pare poche bii dem euh, day anonyme. Mhm. xanaa poche ba am problème mooy tax ñu xamaat. mais tant que poche bi baax na. kenn du xam ku ko ku ko joxe euh, te kañ ko joxe du xam fa mu jóge loolu aussi c'est dafa bokk si sécurité bi nga xam moo tax d'ailleurs kuréel gi nga xamante ne mooy OMS recommandation am yi dañuy dañuy dax xanaa ñàkk pexe lool. Mhm. dañuy xaw a dàq maire de du o famille bi daal ne kaay lañ dimbali fii. mais des fois hôpitaux yi dañu toll foo xam ne fii. dañ fay toll mais nañ famille yi xam ne deret boobu ñuy joxe du deret jooju la ñuy seen mbokk parce que mën nga oo fukki nit ñu ñëw maye deret ja du bokk ak deret yi xam ne moom lañ war a jox kii mhm. beneen ba sa def si fukk yooyu mën na am juróom benn sax seen deret baaxul moo tax euh, du lu ñu recommandé li ñu recommandé daal mooy nit ki jógal boppam rek dem defi mais nag dinañ toll foo xam ne fii médecin yi dañu mujj wax ne mais oo leen seen famille ñu ñëw ñu tuddee ko le don de remplacement. Mm. suñ ñëwee mais ñàkkul mu baax ñu am si benn boo xam ne man ne ko sax en attendant rek am. loolu nag si biir réew mi dañ ko siy dund bu baax a baax mu metti lool. Mm-hmm. <laughs> voilà euh, tey ñuy fàttali rek ñu ngi euh, am mbégte di euh, dalal di sekk waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Thierno Lecompte Seck di njiital association bi nga xam ne moo ëmb ñii maye deret fii ci biir Sénégal voilà Thierno Lecompte Seck ñu gis ne ba tey ci wàllub donc de sang bi dafa am ay maanaam daal loo xam ne ay charte la ay critères yu ci war a am bu ko defee nga fàttali ñu ci tey ban fréquence la nit ki war a joxe. Euh, ban tolluwaay la war a mën a nekk ngir mën a joxe ak yeneen ak yeneen pour ñi nga xam ne peut-être bëgg nañ maye deret bëgg am mhm. information yooyu. waaw euh, loolu am na solo trop ndaxte nit ki bu xamee ñàkkul dina gën a sawar pour dem. Mhm. bon donc maye deret pour nga def ko. il faut nga am fukki at ak juróom euh, ñett ba juróom benn fukki at mhm. diggante boobu si nga mën a maye deret bon euh, ñi nga xamante ne sax moo ñun duñ ko appliqué fii mais ñi nga xamante ne yàgg nañu maye retraite sama compagnie gi. Mhm. mën nañu romb ba sax juróom benn fukki at yooyu bu ko médecin bi d'accord mhm. mais fii dispositif bi ñu jël daal mooy de dix huit à soixante ans ñooñu ñoo mën a maye retraite euh, si biir loolu il faut que nga peser fukki kilo euh, juróom fukki kilo maanaam maanaam tey jii boo pesé wu juróom fukki kilo mënoo maye retraite bu manqué tout sax du waruñu waruñu ko jël. Mhm. donc juróom fukki kilo boobu bokk na si li nga xamante ne obligatoirement il faut que nit ki am ko pour mën a maigrir. Euh, beneen bi si des mooy euh, tey yow mi bu la leeree ne da ngay jëfandikoo yoo xam ne vraiment bokkul ak euh, li nga xamante ne recommandé nañ ko maanaam santaane nañ ko ndaxte tey booy booy booy jëfandikoo drogue wala ngay jëfandikoo yenn yi. Mhm. kooku vraiment buñ ko xoolee du mën a may Mm-hmm. Euh, jigéen juy nàmpal euh, du maye deret mm-hmm. jigéen ju gis baax du maye deret tant que loolu jeexul bu jeexe war na toog juróom benni fan ba juróom ñaar soog a mën a commencé waat deret maye deret ki nga xamante ne day jël yenn garab yi bon di do kooku aussi dañ koy tere pour mu maye deret mm-hmm. euh, ñi jabet ñi anémie ah, ñooñu xam nga ne moos dañu jagadi mënuñoo maye deret góor mën na maye deret ñetti weeru ne mm-hmm. jigéen mën na maye deret ñeenti weeru ne foofu it lañ sa mën a jël comme njàngat xam nga weeru ne jigéen ñàkk deretam mm-hmm. eh, moo tax ñu xaw a def écart boobu eh, écart boobu aussi eh, bu ñu jàpp ne deret yi nga ñàkk temps boobu ngay toog pour soog ko jotaat non non non tey jii boo mayee deret léegi amaana fi ngay toog di lekk noonu wala loolu dañ ci dellu gisati suñu borom temps bi nga toog di lekk rek mm-hmm. ab diir bu ndaw litre yi ñu la jëlal maanaam litre sax gën a ko waa ngeen di dégg jàpp ma <laughs> litre yi ñu la jëlal moom maanaam li ñu la toq sos ñu la jëlal. Ah. si li nga am si litre deret euh, day daal di dellu si waat ndaxte nit ku nekk nag ala kulli aal boo wéree te dara jofu la. Euh, di nga am juróom juróom benn litre si deret si yow ak noo mën a doy ki am mm. cent kilo ki am kii loolu euh, mbiru suñu borom la deret moom. Mm. mbiru suñu suñu borom la. damay taxaw euh, euh, foofu Thierno Laconte c'est important parce que des fois. di nga dégg mm-hmm. nit ki nga ne ko par exemple doo maye deret wala genre mu ne la mm-hmm. ah man damaa tuuti mënuma maye. voilà loolu loolu bari na bari na si euh, si blocage yi. Mm. Euh, ñàkk xam la ñàkk xam la mais nañu xam ne boo feebarul boo anémie wul amuloo yenn feebar yi daal euh, nit ku nekk normalement bu sa système baaxee maanaam sa sa yaram wér yaram bi baaxee si lépp di fonctionner juróom ba juróom benn litre deret nekk na si yow. Mm-hmm. mais question wu ne man dama tuuti déedéet am na sew wóot. tuuti lool mais bu ñu demee macha seen deret dafa baax te manqué wul. Mhm. te bu ñu mayee comme ni ma la waxee euh, du yàgg balaa ngay génn fi ñu ko mayee sax ñàkkul nga nga la nga xam ne daf si boo gisee temps bi nga xamante ne nag loolu c'est un peu technique. Mhm. duñ si bi ñun ñi nga xam ne euh, suñu mission mooy oo ñu ñu mayee loolu wàllu spécialiste yi nga xam ne ñoo nekk centre de transfusion sanguine ñoo si gën a mhm. mais euh, xam nga nit deretam daf si am ñeenti. pepp yoo xam ne yi bu si nekk ak lu muy liggéey lu muy jariñ si nit ki bon xonqaay boobu mu xonq ñaari sax deret ji boo gisee ñu ñi ko uutalee aussi bu bii xonqee nii bii xaw a roos nii globules rouges yi am maanaam pepp yooyu nga xam dafa nekk si biir deret ji mm-hmm. da nga xam ne mooy ta jël ngelaw li nit ki nooy di ko jàllale fi mu war a jaar mm-hmm. ñooñu bu seen globules rouges feebaree eh, dafay indi genre euh, problème yoo mel noonu donc nag double yooyu pour pour nga pour mu ndikkaat li nga manqué le moo tax ñu naan na observé ñaar ba ñaari weer dina tax mu mën a jotaat li nga xamante ne ñàkk na si bopp mais ndox mi si boppam moom fi nga koy joxe rek lay euh, ñëwaat ndaxte euh, place maa ngi si biir ñu jàng mooy li xaw a jaune. Mhm. boo xoolee traite bu baax baax di gis mu xaw a mel lu jaune. Mhm. boo ko xoolee mu may xaw a mel lu xonq donc pepp pepp yooyu si nekk ñoo koy transformé noonu. ba tax na nag bu si nekk nag ak li muy liggéey. si li nga xamante ne mooy euh, yaramu nit mhm. boo ko manqué lee nag forcément buñ la may buñ la joxul yenn garab parce que am na yenn garab yoo xam ne si garab lañ koy jëlee muy les produits dérivés. Mhm. si garab lañ koy jëlee tey ñi xam ne ay hémophile lañu maanaam ñi bu ñu daggee seen deret du taxaw. Mhm. ñi nga xam ne ay drépano lañu donc seen noyyi bi jafe am na produit yoo xam ne fii lañ koy bindee ko jël si deret lañ koy lañ koy jëlee pour man ko defar. donc loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo tey boo demee bitim réew. am na machine yoo xam ne dañuy ñaan yàlla machine yooyu yàlla na yàlla def ba ñu investissement mais si profité bi ñaan ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ñu am lu ñu am ñu dimbali état bi dimbali centre de transfusion sanguine tey jii waroon nañu toll foo xam ne boo ñëwee di maye deret comme ni li am si bitim réew euh, la ñu soxla rek la ñu war a jël maanaam tey jii mooy ñeenti PPP ñetti PPP yi nga xam ne maa ngi koy wax muy globule rouge muy plaquette muy plasma Mm-hmm. ñett yooyu tey bu la neexee boo demee France boo ñëwee man ngay maye boo taala solo nga ne plaquette rek lay maye mais plaquette bi la ñuy jënd. teg ko fële mm-hmm. delluwaat na sa dara. Mm-hmm. donc ña soxla plaquette day lay koy plaquette ñaare boo daggee mooy tax nga sa sa ki gaaw sa dagg-dagg bi gaaw woow donc yooyu euh, dafa nekk yu nit ñi war a xam. amul njëriñ dama yaakaar ne aussi euh, loolu euh, vraiment ñi nga xam ne yàlla baaxee rawatina fondation yi fi nekk. tey jii ñuy wax naan lu day di tuwaawan amul béréb bu normal bu ñuy mayee deret il est vrai que état baa ngi def lu mu mën. Mhm. état baa ngi jéem a mettre en place des postes de transfusion maanaam ay béréb yoo xam ne dañ fay dee rek mais kenn du fa ngi def ay banque de sang banque de sang day traité deret ak des centres euh, régionaux de transfusion sanguine loolu bokk na ci politique ba nga xam ne état bi teg na ko te mu si def ay jéego yi nga xam ne mu ngi koy mu ngi ko mën a def mhm. mais nañu xool ñi nga xam ne surtout les fondations. yi fi nekk si réew mi ñu dimbali nit ñi dafa jaaru te Tëngéej amu ko actuellement mhm. donc Pikine amul banque de sang donc bu bu ñu amul banque sax ñu am poste de transfusion sanguine dina tax tey jii dëkk yooyu nga xam ne ñu ngi quartier yi nga xam ne ñu ngi yi nga xam nekk si box yooyu ñu mën a am facilité pour dem mottali seen yéene parce que bari na am yéene pour def lu mel noonu la. Mhm. am na solo ñu gis ne ci sa plaidoyer quand même que ni euh, euh, doon nga ko xam ne maitriser nga li ngay wax mais aussi euh, ñu gis ne daal am na ay manquement manquement yi bëri na. trop bëri na. Mhm. parce que quand mhm. boo nee fu mel ni ay Rufisque ak yooyu gox yu am solo yu peuple yooyu amul banque de sang. dafay nekk quand ay mbir yu dooy wax yoo xam ne je pense que autorités yi war nañ koo dégg bu ko defee tamit mën a ci indi ay ay saafara daal. voilà loolu loolu soxna si mais euh, nee naa la Tivaouane euh, day dëkk bu day ni Tivaouane. Mhm. ak euh, département bu day ni Tivaouane. Mhm. nga xam ne dafa am ay ay industries yu fa nekk. yoo xam ne nit mën na fa gaañu. Mhm. tey jii ku jokkoo mboora am ñëw am accident mu war a am deret deret yu bare bay ñu ngi ñaan gars yi si xel ci côté boobu la. bi nga xam ne nag moo lii lii nga xam ne moo vraiment loolu am solo. loo xam ne li euh, euh, wax nañ ko muy euh, congrès boobu congrès bi dañ ko reporté ndaxte mu waroon am du 20 au 23 ñu waroon si am nag ay activités yu bari yoo xam ne centre bi daf ko jëloon pour gën a wax si li nga xamante ni moom la Maïdred organisé au Sénégal. Mm-hmm. Maïdred ni mu organisé Sénégal nag am na loo xam ne aussi des na ndaxte la loi bi nga xam ne moo war organiser la transition sanguine ba léegi mu nga assemblée nationale génnagul. Mhm. yàgg na lool si diggante circuit administratif bi léegi nag mu nga assemblée mu ngi fa xaar ñaata taal fay defati defe naa ne aussi foofu maa ngi si interpeller les députés l' assemblée nationale pour ñu góorgóorlu ndaxte loi boobu aussi bu génnee ñu bari yoo xam ne ni ñu dañ ko réere di dinañ ko génne ndax tey jii ñaa ngi wax naan dañuy jaay deret Sénégal te amu fi kenn jaayu fi deret waaw loolu amul donc nag ndaxte li ñu ñu comprendre wul mooy tey soxna si man mii bu ma demoon tey docteur bi seet ma bindeel ma ordonnance ne ma da nga war a am benn piqûre booy jël. Mhm. mais damay dem jëndi piqûre wala injection euh, kii euh, seringue comme ni ñu koy waxee. Mhm. si pharmacie ba. ñu soog si def garab gi sol ma ko noonu la dara mel. der ji nga ji si nekk si mbuus mi kenn jaay ko xam lu lay jaay mbuus mi ko sol. te mhm. mbuus moomu kenn du ko jaay si pharmacie kenn du ko jaay feneen. Euh, programme national pharmacie nationale d'approvisionnement moo koy jox centre de transfusion sanguine ak banque de sang yi. kon nag hôpitaux yooyu ñoo ko mën joxe te état bi jël décision depuis président Ablaye Wade dal nekk léegi poste de sang yi c'est gratuit nañ ko xam ni nit ñi xam ne boo demee hôpital di fa ñu war lañ utal poste de sang amuloo lenn loo fay fay dañ la ko war a jox bu fekkee ne nekk na fa waaw léegi nag euh, am na ñoo xam ne dañuy dem si yeneen structure maanaam cabinet privé ak yooyu mais ñooñu acte bi lañ la naan acte bi ñuy def dina la transfuser ah loolu nag libre na pour ñoom loolu euh, moom moom acte boobu nit ki acte euh, foo dem soo xam ne privé acte bi mu la defal dafa mais kenn amul kenn ku mën a wax en tout cas euh, ñun ñu ngi toog di déglu kenn ku mën a ñëw nañu dem naa fii dañ ma fa jaay deret mhm. bu keroog parce que ay rumeur la yoo xam ne quand même ay commentaires yu ñuy dégg par ci par là quand même. Ah, mhm. amul ah, amul fenn amul fenn au Sénégal kenn du fi jaay deret mhm. ba tax na kon nag si loolu congrès boobu nga xam ne moo fi waroon am. te lii ñëw nii feebar bii moo tax ñu reporté ko euh, yaakaar naa ne incha allah balaa at mii de daanu jàppaat euh, beneen def def congrès bu am solo pendant ñetti fan ay boroomi xam-xam macha allah yoo xam ne seen liggéey seen euh, xam-xam yëpp si wàllu lañ ko def war a daje fii muy war am pour la première fois en Afrique de l'Ouest Sénégal di ko accueilli kon nekk na bés yoo xam ne bu ñëwee incha allah dina am solo trop si wàllu maye de xëy na balaa boobu nag. sunu loi bi nga xam ne moo organiser transfusion sanguine dina génn incha allah. ñu ngi ñaan aussi fii ak boobu feebar bi mën a dellu gannaaw euh, tey ji li nga xam ne moom mooy koor gi mu ngi ñëw. Thierno mhm. Lomone sekk gis nañ bu koox daan ñëw da ngeen daan euh, am ay sensibilisation yi ngeen daan def parce que. Mhm. dafa nekk mhm. période boo xamante ne aussi deret dafay manqué parce que nit ñi duñu xiif ba pare woo naan dañuy dem mais deret <laughs> moo tax foofu koor gi di ñëw tamit lan ngeen ci fas yéene def. waaw euh, koor gi moom euh, yàlla si yàlla yóbbu jàmm. amiin te feebar bi law nii yàlla na ko yàlla teel a arrêté. si biir weer wi yàlla nañu wax ne le Sénégal vraiment gagné na ndam li. maanaam Afrique. Sénégal moo fi jëkk génne coronavirus yàlla nañu ko yàlla defal euh, mas la bu ñëw euh, ñun ñëpp nañ delluwaat suñu bopp si yàlla rek mm-hmm. jéggalu nu ko parce que kii yàlla wane na compét moom rek moo fi nekk lu muy du ko neex lay bref euh, li nga wax muy koor gi bu fekkente ne dafa ñëw day nar na metti mm-hmm. ndaxte li ko gën a metteel mooy wax naa si njëlbeen gi ne bari na suñu maître yi boo koy xool les jeunes mm-hmm. ñoo si ñoo si ëppoon waaw koor gi si boppam dina bari lool ay temps yoo xam ne duñu dem nañ ba ay tangi ni si kanam ci ginnaaw euh, trouvé si benn stage parce que maire rek euh, mën nga ko def bëccëg comme mën nga ko def guddi mhm. amoon nañu ay organisation yoo xam ne macha allah ay jeunes lañu ah, xam nga jeune moo mën a moo tax mu indi mu def référence si si jeunes yi mhm. jeunes yi ñoo mën a dem guddi mais ñu ngi ay di direct ndaxte mag yi quand même sonn euh, ba pare bëgg loolu euh, vraiment bu ma leen nekk rafetlu ñu ko ñun dafay diis. Mm-hmm. donc jeunes yooyu mouvement jeunes yooyu euh, si ak ñu génn am na ay mouvement jeunes yoo xam ne bu ñu dogee ba pare dañ daan organiser wu dem centre de transfusion sanguine mais deret si guddi. Mm-hmm. loolu nekk na lu am solo yaakaar naa ne incha allah. bu feebar bi demee ba nga xamante ne dispositions yi permettre na ko ñu ngi ñaan organisation de jeunes yi ñi nga xam ne ñu ngi fii rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk biir Dakar pour faciliter le déplacement euh, guddi gi bu ñu organiser woo en relation avec le centre national de transfusion sanguine dinañu mën a dem may deret ñibbiwaat seen kër. Mm-hmm. mais bokk na si aussi yeneen dispositions yi jël ma di si profiter pour gërëm leen sant leen euh, di leen ñaanal yàlla yalla moo leen mën a fay ndaxte may deret yàlla rek moo koy fay. Mm-hmm. les forces de sécurité et de défense de ce maanaam armée bi police. vraiment li ñuy taxawoo maye dette ci Sénégal euh, te pas obligé mais ñoom dañ ko jël mu nekk loo xam dañ ko gëm gëm goo xam ne ji macha allah tey jii bu ñu jaxle ba jaxle dañuy oo seen autorité seen kilifa ku mel ni le chef d'état-major général des armées mhm. ku mel ni le haut le général haut commandant de la gendarmerie mhm. euh, ñooñu dañ yàkkamti jot euh, xibaar bu mel noonu ba ñaan seen i seen élément ñu mobiliser wu maître mhm. te buñ koy def buñ fay jógee presque daanu am ay mille poches huit cent poches yoo xam ne dina tax centre bi mais boo jàppee mille poches wala huit cent poches nag da nga yaakaar ne lu yàgg la fekk lu néew la nee naa la centre de sa sanguine cent cinquante poches lay génne par jour mhm. ça que le mois boo ko jàppee quatre mille cinq cent poches mhm. kon xam nga boo amee mille poches benn weer rek mën ko consommer c'est extraordinaire lu doy waar la. lu doy waar la. pension bi ñu xasee ba pay balaa ñuy metti toogaat ñetti weer. toogaat ñetti weer day metti doy waar de soxna si. Mhm. na ñu bàyyi xel waaye. Mhm. na ñu bàyyi xel en tout cas euh, ñuy ñaax képp koo xam ne yaa ngi déglu émission bi nga daal di dem maye deret parce que quand comme ni nga ko waxee jaamu yàlla la te euh, na lu am solo donc euh, Thierno Lekone moom mooy ba tey ñu ngi fàttali ki jiite association bi ëmb ñi nga xamante ne nag dañuy yëngu ci lépp loo xamante ne jëm na ci wàllub maye deret ak fii ci Sénégal. Euh, donc koor gi yaa ngi koy wax euh, yéen ngi wax ñi nga xam ne ñooy association de jeunes yi ñu farlu ci bu ko defee rek ñu mën a euh, daal di maye deret bu baax mais ci avantage yu maye deret yi aussi Thierno Lecompte Seck bokk na ci ni yaa ngi koy wax ci njalbeen dafay am njëxital ci wérgu yaramu nit ki. waaw bu baax bu baax a baax ndaxte dafa am lu ñu tuddee prédon maanaam maye deret dafa am acte bu si jiitu. Mhm. mooy waxtaan bi nga xamante ne. moom ngay waxtaan ak euh, médecin bi ñëw euh, di accompagner équipe wala boo demee centre de transfusion sanguine balaa ngay may deret médecin bi da lay da ngay toog ak yow muy waxtaan bu am solo xam ne bi dañ koy def sax si fu kenn du dëkk la yow rek ak médecin bi la parce que c'est confidentiel li tax mu confidentiel li ñu bëgg yow nga wax nga sa bopp mm-hmm. nga wax sa bopp ndaxte euh, bu fekkente ne da ngay jëfandikoo loo xam ne ni vraiment day yàq sa muy drogue ak leneen mais boo ko waxee dinañ la éliminer moo gën nga ñëw ñu xool la tey jii xëy na amul benn kii bu wane loolu ñu dem analyser traite bi traite bi baaxul ñu dem tuuri ci ko. Mhm. traitement boobu aussi war nañ ko mën a éviter. Mhm. moo tax entretien bi am solo entretien bi nga xamante ne mooy waxtaan bi nga xamante ne moom ngay def ak docteur bi. Mhm. tey jii boo ko waxee te balaa muy balaa muy dem entretien bi dalay seet. dina la def euh, xoolal la say bët. dina xool sa temp sa température. Mhm. dina la poser ay question xool sa tension maanaam xool sa tension dina am ñu mu lay laaj. yoo xam ne yëpp dafa méngoo ak wér gu yaram bu dee bu ñu dem dala ndax nelaw nga bu baax. Mhm. parce que maître boo koy def aussi war nga tëdd reposer. mënoo mhm. dem sport ñàkkatooy xib ñu ne da ngay maître c'est interdit. loolu fàtt naa ko li nga xam ne euh, euh, bokkul. waaw ñu du def sport daw ba ëpp centre de tension sax ñu ñëw la maître xamal ne vraiment kenn du la jël ndaxte effort yi nga def. Euh, noppalootu moo si war a teg. te agent aussi nga war a ñëwee n'est-ce pas. non non non agent boobu yooyu ay jamono la woon ba nga xamante ne euh, médecine bi avancé wul. d'accord euh, donc réactif yi doon permettre ñu doon seet xëy na tey jii nag dañu am ay jumtukaay yoo xam ne nit ki bu lekkee bu dee sax dañu recommandé. nit ki lekk ba suur noppalooku bu baax lekk ba suur naan ndoxam ñëw maye dret mhm. ndaxte dafa doy waar daal maa ngi wax sànq ne la boo tànni la wax toogal man nga mayal dette léegi rek jog euh, miir yooyu yëpp mën na si topp mais ku nga xamante ne dafa jël disposition yi ne ëllëg damay may dette dañ koy ñaan mu ànd ak mu dallu la veille bañ a def yenn activités yi buy xëy di ñëw aussi mu lekk bu baax bu ñëwee may detam dem ñibbi. Mm-hmm. Euh, loolu euh, njariñ la beneen njariñ bi si des mooy yow boo may dette nee naa bu poche bi duggee surtout bu ñu ko xësee ba jël li si des numéro mooy topp poche bi. ba ñu analyser ko bañ ne deret ji baax na nañ ko mayee fañ koy teg noonu numéro moo si nekk. Mhm. mais bu ñu xoolee ne deret ji baaxul dañ koy génnee bu ñu ko génnee xool ne baaxul yow mi nga xam ne yaa ko maye woon dañ lay booy ñëw di jël si sa résultat dañ lay wax nga deseeg assistante sociale moom moo lay deseeg yow waxtaan ak yow. du question wu sida am na yenn feebar yoo xam ne yi man am naa sama benn xarit boo xam ne bii dama fa mas a dama mas topp wax ko ba mu dem ay mhm. ba mu demee ñu gis trace hépatite B si moom. Mhm. mu tiit. Mhm. ma ne ko ma ne ko yàlla. ba nga ñëwee maître am ñu maître ko docteur bi maître ko mu toog ne ko def lii bul def lii bul def lii fii ak six mois nga dikkat. mu respecté loolu six seet. affaire bi dem ñu mayaat ko encore beneen temps. Mhm. pour confirmer résultat bi nga xam ne wane ne amu ko. affaire dafa ñëw confirmer amul euh, hépatique ba dem na. Mhm. ay ñaata góor ñoo am feebar boobu te muy feebar buy rey. Mhm. te ñu ngi koy doxee te jéemuñu ko xam. c'est grave. Mm -hmm. plus de quatre-vingts pour cent laa la wax mooy am am nañ des des ñu ngi am euh, hépatique di ko doxe te tey boo demoon maye deret ñu wan ne yow mi kat am nga ko moytul wala yow bi kat gis nañu tras moytul. moytul jéem laa traité. mais loolu loolu lool te doo si fay dara. Mm-hmm. loolu doomu aadama war na ko xaar. Mm-hmm. dama yaakaar ne dañ war a mën a góorlu jëm si loolu. pour fexe ba xeex ndaxte tey ni soldat bay xeexee sa sa frontière ba pour euh, aar réew mi noonu la doomu aadama bu nekk war a seete boppam bu amee feebar mu bañ kaa wàll keneen. di moytu mooy li ñuy wax ni recommandé recommandation yi joxe nii rek si euh, pandémie bi nga xam ne moo am mbas mi te ku nekk war nga xeex jàppe sa bopp comme militaire défendre li nga xamante ne mooy euh, la population sénégalaise. Mhm. kon si suñu wér-gu-yaram boobu. mais de si bopp avantage mais de jox na si avantage bu tey bu sa euh, taux li ñuy seet pour nga xam ne yow mi kat bari nga suukar maanaam jabet mais de da koy génne. nga man see jël ay disposition bari na ay feebar yoo xam ne ñu ngi si doomu aadama. kon tey boo demee maanaam def may deret sax mun nga def bilan médical en même temps. mais moom di nga di nga am su mm-hmm. sukkar dina la feeñ mm-hmm. si boo dem dem si privé yi da ngay fay. Mm-hmm. ñu offrir la gratuitement. kon nag war na nekk ittey nit ki li am li nekk si biir may deret dafa bari njariñ njariñ boo xam ne bii fekk na nit ñi liñ si ragal mooy yaakaar feebar sama feebar feeñ mais soxna si. Mhm. Euh, feebar bi feeñ defe naa moo gën feebar bañu bu bu feeñul de. Mhm. bu feeñee nga man koo faj nga wér comme ni ma exemple ma joxe léegi si hépatite B bi. Mhm. mais feeñul mu dem di la gagné dafa bari ay feebar yoo xam ne ñu ngi si biir deret. du ñu gaaw a feeñ. Mhm. dañuy nekk ak yow mooy li ñuy wax les maladies euh, dormantes. Mhm. dañuy nekk ak yow te bari na li yoo xam ne dafa bari si biir di law ndànk di law ndànk di law dina dem ba bu la gañee maanaam mu toppoon mu commencé woon si tànk bi bu teeloon fee ñu ne ah kii balaa muy sori nañu fexe ba dindi ko si tànk bi wala boog bu jaree tëgg tànk bi sax ñu tànk bi mu mhm. nga bàyyi ko ba dina dem ba sa yaram ba sa yaram dina toll foo xam ne fii euh, jéem ko faj sax dañ naan rek nañ ko traité nii mais euh, mënatul wér. Eh, yàlla incha allah musal soxna si. Mm-hmm. loolu nag eh, fagaru daal eh, sa ba muy teel daal defe naa. aussi doomu deret daal mais deret daal mën a tax nga fagaru si teel quoi. Mm-hmm. incha allah. voilà donc daal euh, lu am solo si si may dret. am na euh, solo dañuy ànd ak wér gu yaram daal man mi wax ak yow day euh, macha allah maa ngi si sant yàlla bu baax. macha xam naa ne daal may dret daal am na lu mu def si man. yal na yàlla xeeb doole. donc Thierno Lô Seck yegg si nañ si njeexitalu émission bi peut-être nga. Mhm. ñu may la nga lancé waat encore une fois message aux populations aux autorités. ak fa waaw message bi may def day dama koy yéene rek aussi suñu jigéen ñi nga xamante ne dañuy mucc di ñàkk seen bakkan. muy mortalité maternelle bi nga xamante ne lu ëmbalee si réew mi la. Euh, ñu ngi siy def lu ne pour mu wàññeeku mais des na wàññeeku. Mm-hmm. te bokk na si li indi mooy xëpp boobu nga xam ne jigéen dañ koy xëpp det muy bari na jigéen ñuy faatu li indi yëpp mooy loolu mooy deret du amul. Mm-hmm. Euh, ba tax na kon nag euh, dafa naa jaaduwul jigéen bi ñàkk bakkanam buy buy buy mucc. Mm-hmm. loolu dafa war a dañ si Sénégal donc c' est des c' est des éviter. te li tax ñu éviter que mooy nit ñi dem maye deret kon may ñaan doomu aadama yëpp euh, li ma jiite si ñaan gi mooy mbas mi fi nekk nii comme ni ñu waxee yàlla ki fi yàlla jëlee. ba nit ñi delloo si waat si seen xel. xam ne kat euh, balaa bu wàcc la nañu moytu teg li nga xamante ne état bi autorité yi jël nañ ko si wàllu euh, xeex mbir moomu la bi si la si nag bu ñu ragal dem maye deret ndaxte am nañu ko soxla. te bu deret amul mbir mi dina gën a këyit mhm. euh, di gërëm bu baax nag euh, yéen ñi nga xam ne yéen presse bi euh, surtout rawatina seen rajo toujours ñu ngi fexe kaddu maykatu deret yi jib mhm. toujours ngeen di participer si li nga xam ne mooy sensibiliser population bi pour ñu ñëw maye deret loolu nag yàlla moo leen si man a fay yàlla na yàlla dëgëral yàlla sàmm leen te wattu seen rajo bi di au population bi daal nañu moytu daal xeex li nga xamante mooy feebar bi fi am mhm. lépp luñ si joxe comme digal nañ si ànd mais ku mën a dem yoot ndànk dem mais di direct sans détention sanguine ñu mhm. en tout cas ñu lay remercier bu baax a baax na Thierno Lecompte Seck ñu amoon mbégte di la dalalaat ci suñu émission SOS santé euh, di fàttali ne rek yow yaay njiital ñi nga xam ne ñoom ñooy donneur de sang yi di ñi may deret fii ci Sénégal ñu lay jaajëfal bu baax a baax encore une fois ci disponibilité bi ak ci waxtaan bi donc di ñaaxaat rek encore une fois askan wi koo xamante ne rek dégg nga émission bi nga daal di euh, fagaru dem may ji deret waaye tamit euh, xam Euh, nit ki nga koy may soxla na ko waaye tamit yow bés dina jot nga soxla ko. donc euh, daal euh, nañ ci gën a farlu di jaajëfal mbokki auditeurs yi ñu doon déglu Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen dig dajee vendredi prochain incha allah beneen thème ak beneen invité ci la 97.5 Rewmi FM seen émission Rewmi FM seen émission SOS santé.